alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen ñi ñuy seetaan ci seen chaîne YouTube Malben ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen ndokkee ni tamit ci weer wu tedd bi nga xamante ni ci lañ jublu muy shahru ramadan al mubarak ci ndokkeel ma islamique bi yëpp ñaan yàlla mu may ñu dugg ci jàmm gën ci ci jàmm euh, di wax na tey ñu ngi fii ci daara ji euh, ànd ci ak suñu sëriñ oustaz Dame Gueye ñu fa yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy koor ci xaqiqa euh, nan la ñu ko mën a décrypter su ko defee mu nekk message boo xamante ni taalibe yi danañ ci jàngee lu bari du ñu def lu dul bàyyi ko rek mu présenté wu euh, su ko aywa asbilahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa radiallahu taala an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwwata illa billahi alhali alasim bi ay marsek udur lana ba'sal ma'dari wal ta'tufi bi nasratin tatna bisbari ah mbokki Malben ci biir réew mi ak réew yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkel ci weeru teer wi tedd wi ñu tàmbali ah weer wi nag ñi ko commencé ñun ci bésab sula saax muy bésab ñetteel euh, mu ñuy fàttali nag wuyoo waa ji nga waxoon ne waqaftu ma sulasa bi arafa askur rabbi sikra abdin arafa mi ngi fàttali waxi Cheikh Ibrahima boobu nga xamante ne moom bisab ñetteel ca la taxawoon arafa te xarafa kenn ku ne xam na ne foofu lañuy ñuy jëlee maarifa numéro un ak numéro deux boo dikku ci numéro trois doo am maarifa ndaxte aynil maarifi numéro deux moo ko doon xuróosul xaqaayiqi numéro deux moo ko doon te moom du xam ne boppam nag kon kañ fañ koy xamee ji mooy bindikee ci numéro trois mooy yow mu sulasaa kon nag koor ak ren gi moom beneen affaire la ndaxte ajam gam taxawoon ci yow ma sulasaa dafa fàttaliku askur rabbi ab dina arafat maa ngay sikkartee sama rëbb bi boo ne askur laa de rëbbam ba ku xam nag moom bu ne rëbb ci xam nga ñun rëbb ci arab ak laahu ci arab ak ilaah dafa am ilaahul xaqi ak ilaahu boo xam ne mooy ki nga topp mooy ko yàq mooy sa yàlla mooy ilaahul xalqi nag ilaahul xaqi lay wax dafa am rëbb boo demee ci arab bi da xam ne way na arbaab maanaa ana kilifa gi rëbb mooy sa kilifa gi ki lay yar ñun nag rëbbul xàqi lañ wax waxul rëbbul xalqiya moom nag askur rëbb yi maa ngi zikkar tudd sama borom sikra abdin arafa tudd sikkar wax xam ne ki koy def xam na ki muy tàgg ki muy wax ndaxte bari na ku ne ndax laa ilaha illa te fekk laa ilaha illa bi ko jàngee démb laa ilaha illa bi laa la ndaxte laa ilaha illa kéefir mooy laa ilaha illa boo xam ne dafay sóob borom mu ñàkkaa jaamu yàlla toog naan sikkar moo gën julee or kon laa ilaha illa boobu dafa sikkar loo dafa kéefe loo borom bii nag moom sikkaru abdil arfa la tey nag ñu ngi tàmbalee ñun koor gi ci bisab sula saa ñun waa kër euh, ibrahima ah wala ibrahima yitu bokk ah kon nag lim ñuy fàttali ñu ngi fàttale ko ñun dañuy dañ dañ dañ démb ak tey dañu lañ leen boolante ñu seet niñ mën a àndee ku mënul jël démb wàcce ko ci tey xool ni mel doo mën a xam démb ak tey niñ taxawee alhamdulilah ñun yàlla def na ñun ñu nit woor nañ ci bés bi wax ne mooy bésab arafa mooy bésab sulasa bésab ñetteel mooy numéro 3 yàlla nag bi mu waxee ci alquran ah daf ne euh, ci quran mi ngi ko wàccee ramadan bi nga xam ne untila fil quraan billahi wallahi ci ramadan lañ wàccee qul fiihi al quraana quraana mi ngi wàcc ci ramadana arrahman allama al quran xalaqa al insaan allamahul bayaana mu am lu ñuy diggal kon nag rahman bu dikkee ah jël quraan bi nga xam ne xamal na ko insaan mi ñuy fàttali ko nag alquran nee na mi ngi wàcc ci ramadaana kan mooy ramadaan am na lu ñu ci bàyyi junjël ci boo dégg ci ay waxam mét na ku fi dikk euh, gàmmoo yonte nga fi fekk yonte yàlla mahamad waaye ku fi dikk ramadaan man nga fi fekk kon nag ñun ramadaan booba lañ xam ne kon nag dëgg yàlla bilaay bilaay xam nga ne lii est-ce que lii lii damaa bëgg xam ngeen ne mos bëgg dugal ci ay ay ay kii rek <laughs> xam ne yooyu yooyu dafay doy waa trop te dëgg-dëgg yàlla waaye nit ñi nañu nañ nañ taxu fi ñu taxaw ñu xam ñu ñu jaroog leer gi xam man dama bëggoon nit ñi ruq yi ñu taxaw ba gisuñ liñ gisuñ dëgg gi billaay wallaay li ko indi li ko indi mooy lan bëgg fi dara rek jël faydu bi def ko ro eh, eh, fond de commerce jël tariqa bi def ko fond de commerce ñoom jigéen jël ko fond de commerce moo ñu yàqal jot mën ñu am bénéfice ulaayka la si lan taboora moo ñi nga xam ne dañoo dikki ñoom commercial fii waaye fa maa rabbihat tijaaratuhum mooy moo nga xam ne ñoom seen tijaar dañ ko jaari ci yoonu nafiq dama ko firi keroog suñu firi bii ah ci benn xalif xam nga yàlla mm, daan bénéfice boo xam ne eh, marchandise moo amul bénéfice mooy marchandise moo am bénéfice wul ak borom jaay ma amul bénéfice kon nga dikk ko jël ñàkk bénéfice wéer ko ca njaay moo gën ndaxte njaay la moo xam ne mën na ca am bénéfice mukk mooy njaay mahjoob boo xamante ni dafa xam péeb yàlla bi fa muy jaayee marchandise ma fa du du marché ko war a jaayee moo tax man lam yenal maarifata rahmaani amaaro daal ma daal asmaani ndaxte lu tax foo ngay jaayee marchandise moo dul marché am ñun nag alhamdulilah ñu ngi dikk fi nga xamante ni fii mooy marché bi piir pire pire mooy fi nga xamante ah dëgg-dëgg xam nañ lan mooy dayab euh, Qur'an arrahman alamal Qur'an xalaqal insaan alamaxool bayaan xamu kuy insaan nag ah mu ne yaa insaan kul naa saalikal insaan ni yow nit ñépp ndaxte nit xamuloo ni ah, nit moomu nga xam ne tey moom lañ xamal xalaqal insaan allamahul bayaan moo xam nag luy Qur'an dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kon nag quraan bi ñu wàccee ci ramadaan waxut ne furqaan lañ ci wàccee luñ ci wàccee quraan ah ñu ne waaw ñun luy quraan ak furqaan leen <laughs> dañuy dégg rek xam nga léegi dafa am boo xam ne quraan ak furqaan furqaan mën nga ko def qiraa waaye furqaan nga ko def mm. quraan bi wàcc ci ramadaan bii waxuñ ne furqaan lañ wàcce furqaan mooy séparé quraan mooy wëhlatu moom lañ wàcc weer wii muy quraan léegi nag lu tax ñu tànn weer wi wàcce ko ci ndax nag la'allakum tattaqoon ca beneen aaya ba maa leen ko def pour ngeen mën a am nag taqwa waaye yéen yéen ñi xam taqwa ban ma maqaama taqwa maqaama kan la ndaxte tawbatu maqaama borom islaam la ah istiqaamatu maqaama imaan la taqwa maqaama insaan la kon nag lii lu tax ñu nag dañ ko indi ko nag ah laallakum tattaquun ngan ngeen àgg ci maqaama taqwa romb nag tawbatu ak istiqaamatu dikk ba ci taqwa fii laa bëgg ngeen dikk si kon maqaam taqwa ma ma wàccuwaay kan la. mooy wàccukaay fi nga xam ne mooy wàccukaay Ramadan Ramadan mi ngi wàcce ci wàccukaayu taqwa ragal yàlla mënoo ko def mukk tànk du taqwa moo nekk ci yow taqwa nag mënoo ko xam mukk tànk da nga da nga xam ne mooy ah, maqaama taqwa bi maqaamam taqwa bi mooy muttaqi déglu bàyyi fa inna nii bil muttaqi ubaahi man muttaqi lay tiitaru ci ñu fi nekk yépp ci sama ëtt bi tiitaru ma benn taalibe lu mooy muttaqi kan mooy mu tëxi mooy nag ku xam luy ramadaan ak wàccu waay ramadaan ba nga jël ramadaan xooree sa koor ga ca koor ko ndaxte koor boo seet ramadaan mooy tëw it ramadaan jiy fiiri lakk na lu ko tax di kon moom ñu ne waaye day lakk dañuy dàq dañu lakk bàkkaar waaye yéen demal ci ndakaaru léegi yaa ngi def baar yaa ngi ne la te ñu ne bu diggee dañu tëj seytaane xalaat seytaane Dakar bi neen tëju ma ah xam nga dafa am yoo xam ne nit ñi ñoo waroon seet waaw bu ñu waxee waaw lu tax ñu nag maa surtout nag ñi nga xam ne ñoo nekk biti réew ñoom bu ñu demee tey ñu ngi ci weer bi ñu ne nag dégg nga maam dañoo weer bi de bu dikkee dañuy tëj seytaane tëj dañ koy jéng ci seytaane demal Europe la fa manqué lépp loo restaurant yi tey la gën a daw xalaat tëju seen seytaane xalaat nekkuñ ci weer wi ah kay waaw kon nag lu tax ñoom tëju la waaw kay kon nag nit ñi nekk ci weer wi fekkee weer wi taxul nga bokk ci weer wi déedéet weer wi lañ ut pour weer wi lañ indi pour tëjee ci seytaane déglu de kon bakkan xam nga bakkan ñu ne yàlla ba mu bindee lépp daf ko laaj kenn ko da nga mu bind bakkan bakkan ne ko may kan mu ne ko anta anta wa ana ana yow yaay yow mën a may kon ñaar am nañ fi de nga ne ah mu ne baax na ah mu génne ko ba mu ko génnee fa gën a gàtt mooy ñu tëj ko ci kasu xiif bëkkan ni ko xiif xiif xiif bay bëgg a dee mu ñu mën a ko man ant mën a ko ant ant <laughs> yow rek ka am kon nag wéeru tawhid la loolu xam nga xise yi ñu ko jàng ci ci ahadis xise yi ñu ko jàng ci ahadis anu jëriñ kon nag boo déggee kon nag ku nekk ci maqaama taqwa bi yow lañ rakk sa yow lay lakk sa bàkkaar de fa na nii bil mu taqi képp koo xam ne xooree xoo ci biir maqaama taqawa yow yaa ngi ca weeroo waaye nekkoo ci ramadan ba sahru ramadan weeru ramadan ramadan nag mooy kan weeru ramadan wax weer wa lakkee bàkkaar mooy sirku képp koo xam ne yaa ngi oor te sa koor gi génnalu ci sirku xooruloo xam nga yonent bi ne dangay dégg mu nekkoon kon nag waaw bàyyi ñam rek bari koy lekk bari ko or te bàyyi ñam nga bàyyi naan nga jël ñu ko dara ndax bàyyi wut nangam nangam kon nag ku ndeke xoor du bàyyi lekk bay bàyyi naan kon lan mooy ndeke kon loola bàyyi lekk ak naan nga daf lay jàngal lam yëlit walam yuulat maqaama lam yëlit walam yuulat du génn dara du génn dara dugg loolu mooy maqaama tëye kon <laughs> ah, lam yëlit walam waaw kon nag dugaloo dara ci biir aaye nañ la nga dugal aaye nañ nga nga looju pour waccu yépp dañ ko aaye ci koor kon nag lii koor ndeke kon nag dàq la goo xam ne dara du duggati dara du génn kenn rek nekk ci keneen ka amul tëjali suwóor amul tëjali bu mooy lam yëlit wala mu yël amul tëjali biir amul tëjali bi ci dara amul nga dàq xeet dàq xeet yëpp mu ne ramadan xanaa bu ngeen dégloo sama woy bi nga xam ne moom laa woy ci kaw lakk firéem mooy gaaw lakk barxam mbiram mi day lakk bokkaale jaam ñi duñ sikk ñun moo ñu laal ñu ma sëkk koo kooka nag boo dikkee ci lakkee ci lakkee kaay boo yaa nekk ci ramadan ndaxte ramadan mooy firi gërëb sawar bi nga xam ne ku si dugg lakk kon nag fii mooy maqaama bi mooy maqaamam ramadan weeru ramadan ramadan mooy weeru lakkee kay bakkaar ku ca lakk say bàkkaar boo dikku ca taal ba xanaa yow dew ñu ne takk di dikkal ci dugal ci taal bi lakk gërëm <laughs> man du ma dugg kon yow kon nag yow booy boo bàyyi nga ñam bàyyi ki waaye amul njëriñ ndaxte ramadan bu la génn bu la génnewul ci sirku kon du ramadan kon nag ramadaan boobu lañ wax ne ci lañ nekk nii muy saxaru ramadan weeru lekk kay bakkaar tey nañ seet euh, saaradu an laa ilaha illa illallah muhammad rasulullah iqaamu salaat itaaw sàkkaat sawmu ramadan seetal sawmu ramadan fan la ah waa léegi kon nag <laughs> léegi fu ñu koy defee du fii lañ koy defee ah? Eh, dégg nga xajul ba ci moo moo nekk dégg quatrième la xajul bay ci moo nekk ci kanam moo nekk quatrième kan mooy quatrième aha numéro 4 da ngay dikk ci numéro 4 nga wooree ko defee nag yow fekk yaa nga bàyyi ko numéro 5 fële ndax numéro 5 donc du xooree kaay xam na ñoo xam ne ñu ngi oore ci numéro 5 waaye ni ñi woo dëgg-dëgg moo ñu ooy ci numéro 4 bi ñu dikk fii nag su ko defee nag buñ dikkee nag ramadan ba nag. ñu dugg ci rek ci yow ma sula saaba daata bañ demee ca maqaama ya mooy euh, ka nekk ci maqaama ñetteel muhammad yi ahmad yi xilaafa lu mooy ma ci martab ci mooy martabatu saalis foofa la nekkee ñetteel nag foofa moo nekk boo demee ci xaqaayiqa ci trois ngay taxaw boo demee ci mara benn mit jibit nga taxaw ci dem ci quatre ba daate quatre bi fi la ñuy woore si daate ndax xaqaayiq dañ foore moo tax mu nekk trois moo tax fu ñuy oore du ci quatre moo tax mu taxaw ci numéro 4 kon nag fii li ñuy woore si <laughs> moo tax ponk lislaam dëgg dëgg fonkam ñeenteel bi mooy ramadaan léegi nag yow mi xam luy numéro awalu aaxiru saayiru baatinu nga xam nag baat mooy 4 nga xam nag 4 fu kaatee kaatam nga ci fan la saaru ramadaan mooy weer wi ramadaan moo ko moom lakkatu moo tax gis gaaw lakk gaaw a lakk seetal booy dikk rek ah dafa lay dikk kafaytu sahaabi ba tariqa araba kulum bi gës bi waaye nga gis nga mag ñoo ñëkk ñoo xamante ni nga gis ko xam ne ah, fukki at yàlla ñu ngi koy tarbi àgguñ ci yàlla ñii dem ba gannaaw gi ñaari at ñetteel ñuy dem léegi léegi yow nga dikk tey nga gis koo xam ne ndaw su bàyyi ko ca université dikk ñaari fan ñetti rek te dégg nga moo xam li mooy xam li yow nga fari ci yow la déedéet weer wi nekk mooy weeru la kay bakkaar weer soo fi la kese bàkkaar nga dem fay doo ko gisati te kat ñun fii nag xam nga li ci gën a neex mooy doo ko lakk mu del sàdde dégg la bàyyi bàyyi ne sama bëgg ñu def fànnaw bàyyi bàyyi ne kuntu saa wujjóot di nekk naa ñu ne ab ñu ne ibrahima da xam na wujjóot waa ilmi ñu ne ah borom xam-xam wa maalin am alal wa jaay ñeenti yëpp amoon naa ko ñeenti yëpp amoon naa ko fa asaa bahaar yi fii naar ngelaw lu ànd ak safara di ki fekk ko fa faxtaraqal mu lakk ñeent yëpp falaa yar ji del saatu lii mooy ramadaan bii bii nag moom booy si or bii boo fi lakkee boo fi lakkee moom si dëgg-dëgg bi da ngay dàq bàkkaari baari bàkkaari bii rek bàkkaari biti lam yëlit wala lam yurat bàkkaar du duggati bàkkaar du génn ndaxte xamaloo da dàq xëyru ak xëyriyatu bi boo dàq xëyru xëyriyatu mooy lam yëlit wala lam yurat lii nag lañ bëgg yéen kuy or bu leen jël ooru gi nga xam ne mooy ooru xiif ba mar rek du leen jo du leen jógloo ci weerante ca làmb ja du leen jóg weerante ca football ba ñu naan équipe boo man équipe équipe Allemagne bi équipe Allemagne moom maa ko nangam Barça mooy nangam nangam ngeen nekkee ko noonu rek ak koor gi du dama dama leen wax de yéen lañ surtout nag ñi nga xam ne ñoo nekkee étrange la gën a ñu bëgg gën ñun dañ dem ba léegi dem nañ ba léegi làmb ji ak football bi dem na ba dugg ba yi nga xamante ni boo demoon sax këri sëriñ si lax de ngay dem ñuy weerante ñi ñuy tuddee xebaar bi ngay dikkale ñoom salafi ñuy woote ay seen salaf yi nga àgg foofu dañuy wax wéer lamb ci lamb ci dañuy wax heure de football demal ñun nag buñ dikkee fii ñun génn nañ pays weerante yàlla waxtaanee yàlla kese alquran addis yonent nee na Cheikh Tidiane nee na ci la xay ci la ñuy gont kon nag lii mooy ramadan xamuloo ne ñun weer wi dafa gàtt pour ñun ñun fukki weer yeeg ñaar yëpp ramadan na pour ñun ndaxte ñun ñu ci lakk koo xam ne ñu nag xam nga lakk koo xam ne lakk nga dafay neex waaw lakk koo xamante ne xam nga da ah biti ba mooy safara waaye bit ba àjjana la mooy suñ lakk gi ñun mooy ramadan bi kon nag yéen waa àddina bi yéen waa Malben waa ji ma maa tooñ rek pour bëgg maa dugal ci lii rek moo tax mu dugal ma ci lii. <laughs> voilà jërëjëf lool ba tey fukki fan yi njëkk mooy. yërmaane dëgg ndaxte allahumma salli wa sallim ala hayni rahmati moom moo jël place fukki fan njëkk yi yi ci digg bi moo njëggal xanaa xamuloo ne kenn mooy fukk kenn mooy fukk moo tax léegi yow sa juróomi maanaam xaqi xaqaayiqi ak fañ wàcc seen seen salaat cinq nga ko nise yi fañ wàcc ak ka ka def salaatu muy muy muy muy muy juróom fukka nga ñoom ñaa ñoom fukk yooyu kan moo leen taxawee tey du yow kon nag fukk ak benn taxaw ah kon nag yaay benn bi nga xam ne yaay fukk ya ah kon yaay benn tey fukk yu njëkk yi <laughs> ah léegi nag nga dikkaat ci benn beneen ëtt ba mooy fan mooy bi nga xam ne mooy imaan bi wala bokk bu la neex mooy ah, ahmadiya bu la neexee lu la neex wàcc bu la neexee martaba yi ñu tudd kenn nga taxaw foofu bi nga dikkaatee xamul ne kenn kële ba mu nekkee ca kennam ko moo it moo juróomoo juróom yële moo juróomoo juróom yi di fukk nga taxaw benn ko moom itam ah kon nag léegi te xam nga ne fii moom pays bi moom pays bi yëgale la mm-hmm. pays bii mm-hmm. pays bi ci digg bii ah kooku fépp jégale kay xay na ala xay nil kon nag fële yërmaande fii nag jë xàqoo taxaw ma bii fépp jéggal la fii jéggal la waaye nag njéggal ak yërmaande gi yépp nag bokkaale gi jeex jeexagut xamula fii yaa ngi gisee benn benn cab bokkaale bàyyi nee na màttee waqal hijab waqal asaab taa yoo xamante ni kiiraay am rek mbugal am na kon yaa ngi taxawee fu ñu lay jéggalee ak loo defoon ba ñu lay jéggal fële yaa ngi taxaw ne yërëme amalu yow waaye nag da ngay dem foo xam ne yërëm eh, li ñuy wax lu ñu luñ koy yërëmaande ak yooyu daw tawatu fa nga ñëw njégal nga jë nga dem foo xamante ni gooleel nañ la gisatoo gisatoo fooy bàkkaar sax da ngaa mënatu bàkkaar sax bàkkaar ci boppam nga génn yow da ngaa am immunité boo xamante ni immunité boo xam ne fi ne dañ laa goreel mooy fukki mu def nekk gaar léegi nag pays goreel fan la waaye mooy pays bi nga xamante ni wa xamtu yow ma sulasa ñun sulasa bi ci lañ nekk rek moo tax ñun ñu xoor sulasa waaye ñun ci pays yéegée <laughs> li ñu xoor rek ñu xoor pays <laughs> bisu ñetteel bi mu bi bisu troisième bi kon ñun départ bi rek dugg nañ jéggal nañu xaa nag buñ gunge gaa yëpp rek ñun koy fii moom ñun mooy suñu pays moom bu ñetteel bii mooy daayir islaaman wa imaan wa isaan isaan nag xaal jasaawul isaan ilal isaan boo déggee ñi ci lu rafet moom duñ ko fayal mooy rafet kon nag fii mooy ñett yi ma laaj ci gën jee gàttal te bu ma laajat nag bàyyi ma ñibbi nag damay jaxe <laughs> ah ma tëj waaw kon mbokk yi yi ngay maa leen di baru àq nag ah te di leen dénk nañ bàyyi affaire affaire mëccoo boo xam ne daf lay yàqal koor koor gi jot nga indi ay feebar bàyyi leen ko ah ndaxte bakkan de bakkan du dee dafay bakkan bakkan moo feebar de waaye ruu feebaru nit ñi nag bu dikkee bakkan moo ëpp doole mu naan feebar naa bakkan boo xam ne borom xoor na xam ne nekku te xoor moom kenn reyul saytaane waaye boo diggee ku rey seytaane mooy koo xam ne rey na bakkanam ba xoor ba róoxu nekk fi ndax róoxu dana lekk dana naan kon nag ma mooy xoor ndekk xóoru xaari moom róoxu ga lay xooral waaye xoor du bakkan bi lay xooral nag bakkan nag su fekkee ne yow ngaa dem mu ëpp la doole ne la xëyee lekkal naanal xëyee nañ dem docteur bi bàyyi leen loolu bëri na feebar yoo xam ne buy dikkee fii lay feeñee baaxul kon nag nañ fexe ñu wér róowu ma du feebar nañ ko xooral suñ ko ooree dañuy oor oor koo xam ne du du ori mukk ah kon nag boo gisee ñu koy def sax fan fanweeri fan moom pour ay gars yi la waaye am na yoo xam ne moom la xoor ak dapet ko déggee ngay mooy koo xam ne dafa dëkkee du xoor xoor euh, ah, weer yëpp déedéet xoor ak dapet mooy xoor koo xam ne fa nga dàq la nga dàq da ko dàq définitif du dël siaat moo nag fa maa sama mawsuulun wa maa sama baa ima amul mawsuul amul baa ima mooy lam yëlit wala mu yëlit amul foofu boo fa nekkee ma mooy koor bu dappetu dappetu kon nag la ngay dikk ramadaan day lakk day lakk bàkkaar yi kon nag gannaaw ñun nag yàlla dimbali ñu bañ lakk bàkkaar yi gën a rëy mooy bàkkaaru sirk nag dëgg dëgg yàlla nag la ñuy xamal nag lakk nañ bàkkaar yële xam nga dafa am boo ne man day man day xoor naa xoor ak xaqiqa ñu ne waaw ñu ngi lay xaar ba xoor ak xoor ak parce que xoor ak saayir boo ko defee rek day day fenn la nga wax du dëgg soo xooree ci biti ñu ne kon xoore dëgg xam na waaye ñu dikk na nga ne man de xooroon naa ca xooroon naa ca kóos yi ah wala jàppoon naa ca kóos yi wala nag déedéet foofa kóos yi moom saayir la ñun kóos yi kóos <laughs> yi xam na beneen kóosaa ci araax xam nga as asmaa mustara mënu noo ca jaamu yàlla xam nga li ma wax gars yi tur woo indi rek madina am na madina madina googu xam na beneen madina dégg nga Tayba am na geneen Tayba waaye ba nga mooy ne ba taybatu ra taybatu ah, bi nga xam ne mooy taybatu rasulil xaq bi wala taybatu rasulilaay bi booba tayba bokk na tayba yi moom bi taybata ma adraka ma hiya taybatu xam ngeen tayba déedéet daa kullu amri kon léegi li ma la wax ni kenn ku nekk fa nga juddoo day wane fa nga nekk moo tax tayba ki sa juddoo day wane xam nga maa ngi ko wax démb rek suñ bët tësu buñ ne magasin bi xottu magasin taxut magasin am valeur kañ ci ca magasin ba moo tax magasin am valeur kon nag buñ ne xadmiyatu ne kadmiyatu xadmiyatu kadmiyatu xam na valeur waaye nag ka nga xam ne mooy maktoom ba moo ñu tax a jóg kon nag ñun maktoom lañ ci foofu lañ nekkee foofu nañ ah lakk nañ lépp lépp lépp dem nañ xadmiya tegul fa xadmiya tegul fa nag ak sa baaxaay bi xadmiya togal fa nag ak sa baaxaay nag ñun nag borom maktoom bi lañ ut agsi nañ ah léegi ah kër gi ak néeg bi yëpp borom néeg lañ soxla rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu kon nag gars yi xoor leen bu kenn wax ne maj sóob bu oor rek du taalib baay ana maj sóobun yatakallam laa asiduhu man waxuma sax maj sóob ngay mari man boo ne maa ngi waxtaanal maa ngi gàmm nga maj sóob buy gàmm maj sóob koy gàmmoon ak lay wax man pare naa ci moom li ñu ne ko bàyyi na tax mu ne li anni la astiro fi ma seet lay kooku mooy yàlla ci la nekk de fal abdu ima an yasra alxaq fala kalama la wala isarati jaam bi gën a xaq rek li gën bu fàq nekk ko fi waxat yaa waxat ne dara xamul foo kenn ki yow gën a xamuloo fi kon koo koy waxat waaye xam nga ji nga moo tax kéeféer ak ma sóob moo gën a garaaw kéeféer ak ma jóob ndaxte yow kenn mënatu laa defarati su ko defee mu ne kon nag benn nga wax kon nag xaq wa ima an yasra alxalq fala da nga foofu mu kalafun sara boo fekkee ne xalq yaa ngi nii kon sariya kenn kon nag fa xayru xaasal masade ni baatinum loo gis te sa gis bi du ñaari gis-gis yi caaxaan nga gis kon nag yàlla nañ yàlla musal ñun ak yéen ñépp yàlla nañ sax ci dëgg ànd ci dëgg yàlla nañ rey bakkan yàlla nañ koor koor ak boo xam ne lay bakkan daf cee dee witt te du dekkeeti asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah